billaay ñi toog fii rey nañu ma way leen yoon wi ñit ñi mën ak si ci man yéen toog du ngeen sarxi du ngeen xajal ñuy sarxi wa qaala lamlaaku رب الخلق سيدنا أيبقى نبيك معدودا من اليتم مولانا سيد الحاج مالك سي xeetu jàngale yin bi mu jàngale ci jaar-jaari rasulullahi ci réyangoog libéré na ñëpp ku mu neex dama seeti mais façon nose bi doo ko gis feneen dafa topp rasulullahi ca ba mu dee leer ba leer ga di liir mu wax nu leer ga ak liir ga jol naka nekk na leer alaaji Malik nee na muy dugg ci ay kiiraay di jaamu boroomam di sikkar te julleegul njal ma ko sikkar la jëkk a def julli ba mu dee leer la commencé di sikkar ba mu dee leer ak jëmm nag ñu farataal ci moom julli la boole julleeg sikkar alaaji Malik nee na njal ma ko dugg na ci kiiraayu kattan am fa fukki junni at ak ñaar di wax subhaana rabbiyal aala subhaana rabbiyal aala subhaana rabbiyal aala pendant douze mille ans mu jóge ci kiiraay ba tabbi ci kiiraayal xéewal alaaji Maalik nee na am na fa fukki junni at ak benn xam nga lu mu toppoo subhaana ladi daimun la yazaalu subhaana alladi daimun la yazaalu subhaana alladi daimun la yazaalu tudd naa seetlu buur bi fi sax dàkk te du fi jóge mukk pendant fukki junni at ak benn di sikkarte julleegul alaaji Maalik nee na mu jóge ci dugg ci kiiraayal màgg sax fa fukki junni at xam nga lu mu toppoo subhaana quddoosu rabbul malaaikati wa ruux subhaana quddoosu rabbul malaaikati wa ruux subhaanal quddus rabbul malaikati wa ruux pendant fukki junni at alaaji Maalik nee na mu jóge fa dugg ci kéeraayal yërmande yàkkamtee tax ma di ko mas ñam jóge ca dugg ci kéeraayal texe jóge ca dugg kéeraayal tedd nga jóge ca dugg kéeraayal wàccuwaay jóge ca tudd kéeraayal njub jóge ca dugg ci kéeraayal lubbu watu jóge ca dugg ci kiiraayal topp boroomam ak yëkkatiku jóge ca kiiraay ya jeex mu dugg ci fukki géej alaaji Maalik nee na baxrul mahabbati ca la baxrul nadrati ca la baxrul rahmati ca la baxrul qudrati ca la baxrul karamati ca la baxrul maarifati ca la baxrul shafaati ca la baxrul juudi ca la baxrul hidayati ca la baxrul xikam ca la géej ya jeex leer ga soppiku liir alaaji Maalik topp rasulillahi ne xam naa maamam yu góor tagge baaxul waaye xam fi nga bokk baax na yonent bi dana taallamu min ansaabikum ma tasiluuna bi arxamakum na ngeen ne xam seeni bokk ndax ngeen mën leen a jokk moo tax alaaji Maalik jàngale bokki rasulillahi ni Muhammad Abdullahi la bàyyam tudd Cheybata ko jur Hachima ko jur Abdi Manaaf ko jur Qusay Kilaab Murata Kaab Luway Gaalib Fihr Malik Nadir Kinaanatu Xuzeymatu Mudrikatu Ilias Mudar Nizar Maad Adnan entre parenthèse góor gi Ilias fukkeelu maam la ak juróom-ñaar ci maamu rasulillahi bi leer gi tolloo ci descente boobu di septième maam nga xam ne bu fa jógee day jàll ay maam ba egsi ci bàyyi bi fukkeelu maam boobu ak juróom-ñaar leer ga toll ci góor ga toog ca grand place yi ca tàkkusaan ñu dégg leer ga naan labbayka ci ndigg góor ga déggal suñu xaaj Malik rek Ilias Mudar Nizar Naat Adnan alaaji Malik arrêté ndax njool màkkaani ku fi egg si arrêté xamoo nit ñi dañoo defee ne suñu xaaj Malik moo estobé ci Adnan waaye njool màkka moo ne man jaawazal Adnan fi juduudi faqad kazaba kuy nett li samay maam boo ca tegatee Adnan la ngay wax wératul moo tax si xaaji Maalik ne ah man yu jaawisu ku jéggi addinaanan maam mu ñu naan addinaan fa takdibuhu la ko fenloo wane ni waxul dëgg xat jaa a ñëw na moom loola min al alami jóge ci kuñ xam ka di rasulillahi alaaji Maalik ni maam yu góor yaa ngoog maam yu jigéen yi mu song leen tuddi leen ay géej amal buxuru li bil asdaafi fasga ila tartibihinna tulaaqi xayra muntazimi bankal sa baaraam Fatima Salma Atika Xubee Fatima Hind Waxshiyatu bintu Sheybaani wa Maawiya bilwaawi Salma wa Layla Udda lam talimi Jandalatu bul fàtte Atika ak Baratu bintu Saad Salma wa Layla Rabaabun Sawdatun wa Muhaanatu wa Macdadu il abiyaat la lamari benn baat la waa yaay ay shawa yashwishi wala yali li alaaji Maalik nee na il abiyaat taxtanimi آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة أم المصطفى العالمي ابن كلاب وخل فيه انتسابهما آتكة خيل هندا أم وهبهم سيد الحاج مالك توب رسول الله نقول جي عبد الله يوم عمي 18 ans لنكو جوخ سنياي آمنة سنياي آمنة أم 30 ans سيد الحاج مالك نانا بابا سخنة سموغنا تبدي تجيجين عربي وهي حينئذ أعلنتها شرفا ونسبة وافتخارا من جدودهم سيد الحاج مالك نانا عند بيقدي أجمل ما عمي شعب أبو طالب leerug rasulillahi jóge ci góor ga wàcc ca soxna sa nee na yonent yi doon ndokkeel xam naa leen wa jaa aadamu tabshiran wa shiitu laha idrisu nuuxun wa hoodun walxalila simi luma saliixu kalimullahi kilmatuhu min awali shahri fi tartibi la tahini ala annabi wa alayhim ajmaina salaama rabbina daiman amma bi saxbihimi seydi alxaaji malik nee na at mi rasulillahi gane àddina ñaari téeméeri jigéen faatu na ñu ne Maodo ndax dañoo xaru mu ne déedéet seen yaakaar a tas dañoo dégg ni ëmb nañu xayrul bariyati ña ëmboon ñëpp jàpp ni ñoo ko ëmb ba nga xamee ni neeñu leen juddu na ña ëmboon te kenn ku ne ëmbuloo ko nga daal di avorté faatu ca saasa alaaji malik nee na topp naa leerug rasulillahi ba mu amee six mois la ñu déclaré yaayam ni ko yaa ëmb ki gën ci nit ñi malaaka yi tiit bañ dara dal ko ñu def délégation seeti yàlla yàlla tontu foofu lay déparé tey جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا مالك نانا وخال وخنا إنك وخكان لا من الأملاك ملاكا ñoo def délégation seeti sunu borom woo sunu borom ni ko yaa rabbal xalq ma yow borom bindeef yi yaa sayidana yow sunu sang ayabqa ndax da ngay bàyyi nabi yu ko sa yonent bii maaduudan ñu di ko limaale mi nal yutumi ci njirim yi ñaari weer nga yóbbu bàyyam ci biiru ndeyam nar ko bàyyi mu di jirim waxaala wax na déggal am laa ko am laa ko jamoo la te xaala mufrat la borom ibnu malik nee na ووحد الفعل مع الجماعة كقولهم صار الرجال ساعة verbe verbe mën naa nekk singulier sujet ba ñëw moom nekk pluriel ci langue arabe waxaala wax ne al amlaaku malaaka ya yaa rabbal xalqi yow yàlla mi borom bi ndee fi yaa sayyidana yow sunu sang gis nga li tax ñu ñu nasab rabba munaada bu ñu azaf la xam nga lu tax ñu nasab sayyidana jeneen yaa lañ dindi yabqaa ñu rotal liif ay yabqaa mu ndax da ngay desal nabiyu ko sa yonent bii di xayrul bariyati di yaakaar yi ñëpp ëllëg maaduudan ñu di ko limaale minal yutumi ci njirim yi yàlla ni ko tey ma taf ko ci sama bopp ba mel ne bàyyam a ngi dund alam yajidka yatiman fa aawaa wa wajadaka daalan fa hada wa wajadaka ailan te ka taqdir mooy alam yajidka yatiman fa aawaytuka la béyk waaw moom lañ fi nekk xoon naa ko ci gën a gàmm góor ñi ñoom si rafet njort ba duñ ma sarax laay ju ma tudd njëkk ak naan ma yàlla nga fi yàgg ma ne amin ak yéen bilaay si dama ko ruus rek waaye kon damay jële fii ñi taxaw ne la ci kanamu jigéen ñi mu ko rus rek alam yajidka sunu borom ay wax ak rasulullahi alam yajidka ndax fekku la moom sa borom yatiiman ngay njirim fa aawaa mu tàpp la ci boppam borom bayaan yi ne kaafu yajidka moo tax ñëwul fa aawaytuka dégg nga keefu alam yajidka moo tax ñëwul fa aawaytuka baamul kaaf bi njirim nga woon ma tàpp la ci sama bopp ba mel ne sa bàyyi ngi dund wa wajadaka doolan wa wajadaka ndax fekkul woon moom sa borom doolan ngay ku ñu wax yiwul révélé wu ma la woon de gis nga dooni ko nga sànku de ñol màkk musul sànku xamul woon njàng nag lu njëkk lislaam di ñëw maa kunta tadri man kitaabu wala imaanu walakin jaalnaahu nuuran nahdi bihi man nasha innaka la tahdi ila siratin mustaqim waaye musul sànku njol màkk nee na li ñuy wax ngonnal ngonnal xam ngeen ngonnal ngonnal powum séréer la ma ngay commencé gannaaw timis jëm fajar dana am sabar dana am xiin ngonnal njol màkk ne benn yoon dama si yittewoo bëgg caa dem dem ba jub njënnal ma ni ma ngay napp lu far nelaw nee na yeewul ba jant baa ko yee yàlla ni ko maa la aar doo dem ci fu ñuy foowee ndax dama laa nar a yónni nga tere po ah sunu borom ni ko xamoo woon ngëm xamoo woon lislaam ma xëy jàngal la ko wa wajadaka mu fekkoon ne ailan ngay ku ñàkk fa agna mu woomalal la ñu ni njool màkk ban koom-koom la am mu ne dafa doylu alqanaatu maalun laa yanfadu wa kanzun laa yafna rasulillahi nee na koom-koom bi ci gën a bari te gën ca wér mooy doylu yàlla bu bëggee nattu ab jaam day jël bëggee def ko ci bët ya lu ko romb muy xinneeku rek xoole rek xoole rek xoole rek bëgg ci bët la ne ku bëgg boo ko rombee làmb poos xam da lay jalbati ko rek ba xam moom ngay joxam déet ah sunu borom ni maa ko tàpp ci sama bopp maa ko jàngal ba mu xam maa ko jël teg ci kanamu ñépp defar ko ba mu gën ñépp ma jël yaakaar yi ñépp def ci moom ni ko yónni naa la ngir yërmande Seydi Hajj Malik ne arrahmatil muhjaati lil akwaani subhaana rabbina al azim sha'ni ne na njool màkka cadeau la boo xam ne dañ ko préparé may ñu ko bu doon sun pexe kese kese kese kese duñ ca jot moom sayyidul wujud wa qiblat shuhud malaaka yi laaj loolu ni njool màkka yow sunu boroom da nga koo nar a bàyyi ñu di ko limaale ci njirim yi alaaji maali nee na malaaka yi posé nañ question yàlla répondre na xam naa ko yónni naa la tiwaawan wax ma ko damaa guddi
قال إنني لا شبه حفيظ وقال لا إنني لا شبه حفيظ وربه عون وكافي في الإمام هود مالنا وقال لا إنني لا شك حافظ وربه عواك فيه في الإيمان حوائجنا مولاي وسيع دعني بفلني وقال لا إنني لا شك حافظ وربه عون وكافي في الإيمان نورنا وقال لا إنني لا شك حافظه وربه عون كافيه في الإيمان إيمانا تقضي هوائجنا موضوعا وسيعا موضوع بجند الجاني وقال لا إنني لا شك حافظه وربه الله كافي في الإيمان ومن لنا مرنا واغفر لنا إيمانا إيمانا تقي أوائجنا وضيا وسيع الروح دخلني شيئا انتبه وقال لا إنني لا شك حافظه حافظه وربه عون وكافي في الإيمان أتمم لنا نورنا أنا رب الجارة إيمانا إيمانا تحضي حوالينا يا وسيع تبين النيج ينتبه وقال لا إنني لا شك حافظه وربه الله كافي في الإيمان أنم لنا نورنا وواغفر لنا إيمانا إيمانا به وقال لا إنني لا شك حافظه وربه أنوى كافي في الإيمان أمن لنا شعار وقال لا إنني لا شك حافظه وربه عونه كافي في الإمام ملاك ينو لاج سن بروم نيكو مون داخ داغي باي رسول الله ñi di ko limaale ci ngiri mi maam sayid alxaaji malik nee na waxaala mu wax moom yàlla ni laa déedéet inna nii man yàlla wér na ne laa shakka amul benn sikki sàkka ni xaafizuhu may aji wattoom te fallahu xayrun xifdan wa huwa arhamu rahimin te man yàlla ku ma wattu nga ñoom maa koy wattu de preuve bi ci wattu gi benn yahud invité na ko dégg ni rasulillah yi yàpp la bëgg te yàpp lam ci gën a bëgg mooy côtelette xam nga lu yahud ba def xar la rey saaf côtelette yi ronkos ko poson ba mu fees dell invité ko njol makka woo sidina aboubacar ni ko nan dem ci invitation ba njol makka daawul dem moom kenn daawul lekk moom kenn ما كان ياكل خير الخلق منفردا لان ذلك خيم النكس والبرم سيدي الحاج مالي نينا كو خامني بو ني لا تاجي نيام nga dikkle raxasu dugal sa loxo yow kenn mandarga la ci siis ak bon njol makka daaw lekk moom kenn déglu de mu ne sidina aboubacar nan dem babacar gunge ko ñu yegg si ñu taaj leen ñam mi njol ma karaxas loxom yi set leen ca baaraamam yu sew ya leer gay melmeli mu raxasu babacar raxasu njol makka ni cas kotlet wa kotlet wa ni ko laa taakul nii bu ma lekk fa inna nii masmuumatun man dañ ma poissonné njol makka muuñ tegaat kotlet wa ci suuf ma ne ñu naan ndax poson booboo ko rey ndax gisuñu xadis boobu ñu naan njol màkk poson ba mu lekkoon a ko rey ma ne ndax gisuñu xadis boobu jotu ko sax a lekk daf ko ni cas kotlet ba ni ko laa taakul nii bu ma lekk fa inna nii man masmuumatun dañ ma poisonné mu tegaat ko ci suuf ree ni yàlla wattu na ma kon nag la shakka amul benn sikki sàkka ne xaafisuhu may aji wattoom wa rabbuhu boroomam awnuhu mooy ndimbalam alhaji malik nee na kaafiihi la yàlla wax ni doy naa ko sëkk fil imam yi ci wattu gi سيد الوجود وخيبة الشهود منبع كل فضل وجود أخر بمن قد أمره بالهجرة بيت بابو دي bayti boobu de bala ma ko firi ngeen defal ma iltisas fi tasu ba tànt bi daanu wala duma ko fa firi سيد الوجود وخبرة الشهود صاحب التاج واللواء صاحب التاج واللواء أكرم xam ngeen lu mu wax dane akrim kaaw téef tedd nga bi man ca sang ba nga xam ne amaraho digal na ko moom yàlla bil hijra ci gàddaay ñu ne ko ku ko digal gàddaay gi mu ne rabbul wara borom mbindeef yi di yàlla moo ko digal gàddaay laylan ci guddi min min nga wax de minum bidaaya la baid wa bayin wabtadi fi l amkina bi min waqad taati li bati l azmina subhana alladi asra bi abdi laylan min al masjid al harami min makkati xaaji abdul aziz nee na sunu borom moo digal rasulillahi mu gàddaay min makkatin dépare makka min makkatin maa rafiqihi ànd ak ànd doom ba alkarim bu tedd ba di aboubacar siddiqihi kay aji dëggal rasulillahi ba ñu tuddee ko ku dëggu ki almaarufi ka di ko ñu xam ci mbaax fil jaahil azim kay borom daraja ju màgg ja سيد الوجود وكبة الشهود أكرم بابو غني يميتي هنا أكرم كاوتيف من سيد تسنغ حمولي كو خمير فينو أذى البرايا البرايا ndeke ku bëgg a yegg ci yàlla da ngay tëdd ni wàpp nit ñi lor la nga muñ ko yàlla yéege la ndeke yoo ku bëgg a yegg ci yàlla da ngay tëdd nit ñi di la lor nga di ko muñ yàlla yéege la moo tax cheikh alxaaji abdul aziz si dabbaax demoon ba dominer àddina ci anam boobu akrim akrim mu ne akrim kaaw téef tedd nga bi man min sayidin ci sang xamooli bu yanuwaa kon azal baraya loru mbindeef yi ñu ne ko kooku mooy kan mu ne walidil batuuli mooy way juru fatimatu bintu rasulillahi akrim bi man sayidin akrim kaaw téef min sayyidin ci sang miataa'i ku di joxe waa kon yamuy ci joxe baxaril huda mooy géejug njub xiirati lanbiyaa yi moom la ñu tànn ci biir yonent ya mu ne akrim kawtéef min shafiin ci aji ramm ji ëllëg mushafaa yi koo xam ne dañ koy digal mu ramm inda shtidaadil hawli fas taruk tiit ma yowmal fasaa yi bisu njàqare ba bu ñëpp dee rag-rag yi di pat-pati jol ma ka ànd ak sagoom jekki jóg bëgg a julli ndax julli la miinoon sunu borom ni ko julli amul tey xam nga nooy def sal toota laajal ma jox la washfa tu shafa soo ne yàlla bàyyil ma bàyyi koo ni naa ko dugal ma dugal ko mu ne akrim bihi kaaw téef min munqidin ci aji xett li xeetam raximi ku di aji yërëm leen akrim kaaw téef bihi ci rasulillahi min maljain ci wéeruwaayu ëllëg ak bu tey karimi ku tedd akrim bi akrim bi akrim bi akrim bi fireeguma akrim bihi akrim bihi akrim bihi akrim bi haza al abdi inda rabbihi akrim bihi akrim bihi akrim bi haza al abdi inda rabbihi mu ne akrim bihi akrim bihi أكرم به أكرم بهذا العبد عند ربه أكرم به أكرم به أكرم بهذا العبد عند بايا الحاج عبد العزيز دباغ شيبة الحمد بورجي تبجاو بنينا أكرم به kaw téef tedd nga ci rasulillahi akrim bihi kaw téef tedd nga ci rasulillahi akrim kaw téef mbaax bi hada alabdi ci bii jaama baax inda rabbi fa yàlla waaw ah bal bal leen ma xaq de da ngeen ma jëggal man yaa man yujibu labda billahi alladi la ilaha illa huwa xasida yi sëriñ abdou taalif yépp sopp naa leen waaye yaa man yujibul abda man ni may def du ko def mbindeef ci sama yëg yëg te yàlla rek tax Habib jërëjëf juróomi téeméer jox Abdou Aziz juróomi téeméer sama juróomi téeméer joxaat naa ko Abdou Aziz ndeysaan ndeysaan ndeysaan juróom junni la ma jox ni naa jël juróomi téeméer jox Abdou Aziz juróomi téeméer sama juróomi téeméer sarax naa ko Abdou Aziz akrim bihi akrim bihi akrim bihi أكرم بهذا العبد عند ربه أكرم به باي شغل الحاج عبد العزيز نانا كاوتيف تدنا kaawteef mbaax bi haadal abdi ci bii jaam moo baax inda rabbihi fa yàlla te kat foofu la wax ji ne nekk am na ku baax fii te baaxul ci yàlla waaye nee na rasulillahi ku baax la fa yàlla akrim nga ne
akrim bi rahmatin muhdaati mu ne akrim bihi kaw téef min rahmatin ci yërmande muhdaati bu ñu maye
sayidina mabaawan sayaati sayidi man mooy sangu képp koo xam ni mabaa wéyoon na wa man sayaati ak koo xam ne xalfet naa ñëwi ëllëg li xam rahmatan ila istisnaai
waaye mooy sangu mbindeef yi lil xalqi mbindeef yépp laa wax lañ ko jox rahmatan yërmande bi la stisna yi ci lu amul benn settee amul benn exception yërmande ñépp la min fadlil qadiimi bi baqaai ma nga jóge min rabbina ci sunu borom alqadimi ki fi jiitu lil baqaayi te mooy ki fi desit akrim bi man qadira lil ashjaaru yëguloo ni njol màkk génn na benn yoor yoor genn garab buddeeku naan dirérérérérér ba ci kanamam ni sujjóot nii sujjóot ci kanamu rasulillahi cheikh alxaaji abdul aziz ni akrim kaaw téef bi mën ta sang ba nga xam ni sajadat sujjóot na lahu ñeen ko al ashjaaru garab ya li ajlihi wa gaabat al anhaaru garab yi sujjóot nañu li ajlihi ngir màggal rasulillahi wa gaabat niis na ci juddoom al anhaaru dexu yéeféer ya رب الله بنا شكا إليه جبل مولاه
shaka ilayhi jamalun mawlaahu dafa am benn gëléem ñu di ko sëf ba sëf ba metti di ko doxloo ba doxloo ba metti gëléem gi ne kon nag naa ñëw jàmbat sama bopp ci rasulillahi ñëw nuyoo ñu ne gëléem guy wax nit yi njool màkk ni yàlla tàggat na lépp ci sama kanam gëléem gi ne rasulillahi dañ may sëf ba sëf bi metti diwee sama borom njool màkk woo ko mu ñëw mu